sëñ Bamba nag fab xasaayid yëpp daal dina xëñ addis ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaayid yi yow loo man durus dangaam yoolub ku wàcce limub kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ki man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolub addis am yoolub xuraan ak bu màggal wétt waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ko alxuraan faat sikar faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolim yi wa gaay amoon tem raw la yow mi nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yoolub màggal gii lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laa ngi jataayu sëñ bamba bee muy ne akub yonenam ku mbokki fii mooy Ngunjaan di askan woo xam ne ay askan ñu ëpp ci ñun ay askanu séeréer lañu ñu ëpp ci ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañu ba ñi jokk ci yeneen e, tarixa yi sax jaxasoo nañu ak murit yi ba nga xam ne doo xàmmee feneen fi ñu féete ngir cofeel bu ñu am ci sëñ Tuubaa sëñ bi téeméeri nit yoo jël fii ci Ngunjaan téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ay jullit lañ waaye ci jullit yooyu téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom yi sëñ Touba lañ yaakaar àdduna ak loolu jógewuñu ci beneen diine ñëw ci lislaam jógewuñu ci beneen tarixa ñëw ci murit dañuy juddu suñuy maam nekkoon ay ceddo waaye ay ceddo yu gore duñu moy yàlla duñu lekk lu lewul te buñ newoon suba dina taw lu ëpp yàlla dina taw ndax seen ngëm ndax seen yaakaar bi mu yaakaar yàlla yàlla def sëñ Touba moo moo tax sunu askan bi di askanu Ngunjaan dugg ci lislaam kon bés bu mag bii di ñetti fan ci safar bërki Dembo Njaay lañ doon màggal Masaalikul Jinaan ci ñaari bés bu ay ñu màggal màggal gu mag Mbàkke si boo leen ñëwee fii ngu njàng desalatal ñu dara Mbàkke si lépp loo xam ne ngu njàng mës na ko def ci yoonu murit bés bi fay ngeen ñu ko maire wax na bu ñu soxla woon ndax bu ñu ñaanee sax ndox yu gaaw a ñëw ci loolu lay ñëw dafa amoon jamono foo xam ne ndox dañ ko iite woon lool lool lool ci nawet bi gàncax bi dem bay bëgg a dee ñoom ñu daje fa ñu doon daje xam ne saa yu mosoon daje fa balaa ñu jóg foofu rek dañu am lu ñu bëgg loolu laa bëgg a ñëw foofu la yendu ba ngoon jot di waxtaan te buntu feeñul waaye benn waay bu dëggu moo jóg ne leen yéen de dafa mel ni ndox ngeen bëgg ñu ne ko waaw mën na demee gis ni jeetaay bi yàgg na wax bi bari na te fii mu nekk nii fekkee ndox ngeen bëgg dama bëgg leen xamal leen fii mu nekk nii ku fi yeex rek danga tooy dangay ngay xuus ci ndox te ndam ko waxee wallaahi noonu la amee ndax moo taxaw ne yàlla sunu boroom dënul mu daal di dënu ñëpp di dégg dënu bi mu ne ko sottil ma ndox mi yàlla commencé sotti ndox mi keroog ku ñibbi da ngaa tooy da nga xuus ci ndox ñibbi te duñu woon ay jullit kon dogum moo leen mayoon loolu ñaareel bi am na benn gol bu nekk fii balaa nga egg si Ngunjaan yaa ngi koy gis fi ah sa sa camoñ nii foofu lañuy tuddee xan fa xan xan fa xan mooy xane fa xane loolu li mu firi ci olof mooy tey tey tey tey tey bu nawet mosoon digmal foofu lañuy daje népp noo xam ne nawet bi noonu la war a mel bu ñu jiwee dugub keroog jiw ko gerte jiw ko lu mën a doon ci lu ñu aaju ci mbay keroog lay sax keroog lay mag keroog lay ñor keroog la ñuy xam nawet bi na lay mel kon am na li yàlla jeeyoon na leen loolu amoon na li may wax ñi fi dëkk yëpp mun nañ koo seede mun naa koo seede waaye nag bi nga xamante loolu itam passé na ah ma ñëw itam ci jaa alxaqu wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqan sëñ Touba moo indi loo xam ne mooy dëgg te looloo sax te loolooy ndam li tey ñoom lañu jàppoon donte gore woon nañ ba am la ñu am ca yàlla dañuy woon ci tus loolu dafa mab dafa nen ndax Ngunjaan yaatu na fukki dëkk ak juróom la waaye mën naa leen xamal benn exemple bi may jël mooy misaal bi may jël ci Ngunjaan fii tey mooy pay bii nga xam ne Ngunjaan pay bi ngeen nekk fii ndax fii laa juddoo foofu laa yaroon waaye lépp lu ma wax fii beneen dëkk boo dem ci diiwanu Ngunjaan di nga dégg yu mel nii ka nga xam ne moo sos Ngunjaan pay gii ba mu faatoo ñu ngi ko suul fii maison de com maison francophonie bii ngeen di gis ci ginnaawam gendarmerie baa ngi foofu foofu lañ ko suul waaye foofu lañ ko suul ba ñuy tabax maison comme animation rural bi te tabaxu ban lañu soxla woon ban amu fi ween ci lañuy jëloon ci lañuy jëloon armeelam boobu gasaat ko jëlaat ko suuf ban ci lañuy ñu kon kooku bu nekkoon ci dëgg tey foofu dañ koy warmaal di ko magal waaye amu ko dañu naan fii la ak fee la ak fee la looloo fi xewoon ak histoire bu rëy li ci xewoon sax kii jamono loolu amoon na fi ñu bëri laxasaayu nañu nag ñoo xam ne dem nañu liggéeyal sëñ bi ba am na seex yoo xam ne tey mun naa ne seex yu ràññeeku fe ràññeeku lañu fii ñoo xam ne liggéey nañ siñ Tuubaa bu baax a baax ndax su ma jëlee ku mel ni sëriñ Ngagne Kandji fii ci sew xaay kooku ñëpp xam na ko fi ndax siiw na tuubal ni fi ñu bari te bëri na fi ay taalibe lool buñ jëlee ki mel ni sëriñ Cheikh Sarr bee xombol am na fi ay taalibe yu bëri ndax tuubal na fi ñu bëri te ba léegi ay taalibe ñu fi boo jëlee ki meñ ni ki mel ni Serigne amadu Fall faran ca kër faran Guèye kookam ci kàngam yi la yoo xam ne sëñ Touba leen gërëmal boppam te ku ci nekk def na fi jaloora kooku bëri na fi ay taalibe lool te loolu lépp diiwaanu Ngoundiane la. am na mag ñu baax ñoo xam ne itam dañu laxasaayu woon ñoo jëlal seen engagement bopp dem laxasu dem liggéeyal suñ Touba ba am ngërëmam wàcce alxuraan wàcce xam-xam wàcce lépp ba ñëw tey daanaka boo tuddee seen tur ñu bari xam leen fii. ñooñu boo leen limee dinañ mat juróom-ñaar ci diiwaanu Ngujaan bii kon ñooñu yaafoo suñu ci yoon bi fu jëm Mbàkke Bari mu def Mbàkke Bari ay weer waaye gis nga kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci aw fit kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci jom kenn du Cheikh Ahmed Bamba ci ngor gis nga alxemes bi nga xam ne bu bët setee di ajjuma ci la sëriñ tubaa war a génne mbàkke bari wala boog ajjuma ji nga xam ne bu ko sëñ tubaa jullee bët set di gaaw ci la war a génne mbàkke bari ajjuma ji sëñ tubaa amatul jot te toog day baagante ci xur wi di ñëw ci jàkka ji di dugg ci kër gi di génn di dem ci daara ja mel ni kuy séentu gan ba ñépp jaaxle naan sëñ tubaa mi am na ku muy séentu ndekete boobu moom nattu bi lay séentu heure bee jotagul rek sëñ tubaa yàkkamti sëñ Fallou nee na def naa ñun ñeenti jataay ci bëccëg gi dajale ñu ni ñun ñëpp daara ji doom yi soxna yi waar ñu ci yàlla xamal ñu boppam ma diir mu wooma man Cheikh Mouhamadou Moustapha ak moom waar ñu xamal waar ñu ci yàlla xamal ñu boppam bàyyi ceer na ñëw fekk yónni na ko ndar kenn du maam ceer kenn du maam ceer bi ko sëñ Tuubaa di yónni ndar fanweeri at laa di xale bu ndaw mbub mi mu sol du mbubum wàccaay ndax boobu mbubu yombut te am na sëñ tubaa ci ay mitit sëñ tubaa ne ko ceerno demal ma ndar boo demee nga gisal ma borom ndar jox ko leetar bi te laaj ko ba xam moo nuy woon de mu mel ne tey jii donc nga daara bu jógee ci daara yi tërbiya ñu ne ko kaa ñu yónni la ci président Macky demal palais boo demee nga joxal ma ko leetar bi sans audience maam ceerno ànd ko fitam dugg ndar dem palais jàkkaarloo gouverneur général bi ñu ne ko kii de nee na Ahmadou Bamba ko yónni mu xool ko col gi doyu ko melokaan wi ni mel maam Thierno génn leetar na ko moo la ko jox mu ne ko teg ko ci palaat be mu ne ko duma ko def ki ma yónni nit man may nit yow mi ma la fekk si ngay nit ñuy ñetti jaami yàlla mu yónni ma ci yow nga yor loxo mayor yor loxo seexlootuma la nga di ma seexlu soo tàllalul sa loxo ma dëpp moom gouverneur général ba tàllal loxo bi ko yow Ahmadou Bamba la fan la ko maam Thierno teg fa haysuma taxaf ilaahakal ahad yaxaf ko min fawqihi kullu ahad sëñ Tuubaa nee na bu ragal dee genn ragal ko yàlla soo ragalee yàlla lu ragalut yàlla dalay ragal maam Thierno dafa ragal yàlla bi maam Thierno dëpp la fekk ajjuma ji jeex na bañ duggi guddik ajjuma gi Serigne tubaa nag mënut a duggati ci kër gi bi mu jullee fajar ci jàkka ji jëmaat ci biir kër gi la tudd yàlla na sama borom nee na ma kër gi bu ma ci duggati fi muy toog di laaj ndax Thierno ak seegut lañ ko ne leemu agsi ndax sëñ Touba kenn du ko wax déedéet nee na ci lañ seen ci leer gi takk leeru fas wi ñu ne ko maam Thierno ngi di ñëw. bi maam Thierno ñëw di bëgg a wax sëñ Tuubaa daf ko ne Thierno bul ma wax benn baat damaa yàkkamti ci takkusaan ba ngay wax tubaab bi sànq leen yi doon dox ci seen i tànk maa ngi koy gis Thierno damaa yàkkamti damay liggéey li yàlla njaboot gaangoo waaye na nga wéttali ñett na nga am jom wéttali koo yàlla te tagore tagore nga am jom wéttali koo yàlla ca gore ko wét koo kuddut yàlla gis la na ñëw nga wéet ceerno boo amutu fit doo taxawal dara ceerno boo góorewut su la yàlla joxee nga fàtte say bokk Sëriñ Tuubaa wax ngelaw boobu kenn du Ahmadu étape bi mu jëkk def bi mu jógee kooki jeewal la jaar dajee lu mat juróom-ñaar fukki soldaar ak juróom-ñaar Sëriñ Tuubaa di kenn nit te soldat si bokku ñun ñii gendarme boo xam ne boo ko nee dama ne mu ne la xaar boo ko nee baal ma ak mu ne baal naa la bu julli jotee mu jàpp ne yow ngeen dem ci jàkka ji boobu yooyu néew fi soldat bu déggut wolof amu fi bàjj na fi nekkoon bëgguñu lislaam yàkkamti jëlis bakkanam sëñ tubaab sëriñ bi dajeeg ñoom war ci ngelaw mboom la bi tubaab yi dawal seen fas yi ba yéeg tund jeewal lañ dajeeg tubaal tubaab jóge ci xur yi ba yéeg tund wi ñu seen ngelawul sëñ tubaab yi ñu seen pelle bu weex ba jàmbaar ja ne ca kaw sol sama dooram ba tubaab yi ne taxaw leen ma nga nee di ñëw fas yu yàkkamti lool sëriñ tubaab dawal fas yu ko wër leen dëkk taxaw ne leen kan moo woo ci yéen ki nu yónnee daaw ba wër ak moom aw fasam ne ko gouverneur général moo yónni ci yow ci dalaa yàkkamti sëñ tubaab lu cëpp fas wa laaj ndox jàpp julli tàkkusaan def ay salaatu alayhi def ay baaxiyaat saalihaatam toog ci deram nag di di yàlla yàlla tubaab bi daw ñëw talloog moom na ko gouverneur général bi laa yàkkamti sëñ Touba nee na sama borom na ma defal juróom fukki juróom fukki bismillahi rahmaani rahim ma jàng ko ba noppi mu ne ma taf la ko ci sab xar kanam bi ma wëlbati koo jàkkaarloog tubaab bi na ko loo wax mu ne dama ne kañ nga man a dem sëriñ Touba ne ko ndigalul yàlla li ma jot mooy damay fanaan fii fitu sëñ Touba juróom-ñaar fukki soldaar ak nangam jël si la te soxna sa bakkan te ku ne yor fetal waxuma la nga yàkkarten leen ca dëkk ba ba am wétal waaye xuru àll bu toll na jeewal sëñ tubaa ne leen fii laay fanaan te yaar ñoom dong nga fay fanaan ñu wër la sëñ tubaa ne leen fii la ma yàlla jox ndigal fii laay fanaan sëñ fanaan jeewal bi mu jullee fajari jeewal ji la ne moo yee tubaab yi satt leen sattalak ndoxam nga ne leen jóg leen ñoom ñëpp ñu dawandoo moo leen kunu wooñ ana yoon bi tubaab yi jiitu dañuy dab sëñ tubaa fas wa day daw